CNG doxinu CNG. non doxinu CNG moom doxinu CNG moom wax dëgg yàlla moom kenn musu koo rafetlu parce que ni ñuy doxee mooy CNG mooy ndogal bu jugee si état ñëw rek ñoom duñ ko résister te te te liggéey demewul noonu nit bu lay liggéeyloo bàyyi laak sa sa sa sa sa sa conscience tranquille rek li ngay liggéey di nga ko liggéey xel mais nit bu lay liggéeyloo ba pare diriger la dootoo dem xel. day dem ba benn moment boo xamante ni yow rëpp rëpp ngay demee. mais CNG nañ xam ne làmb ji is ma la làmb dafa neex làmb sport la boo xam dafa neex kon nañ ci jàpp waay làmb bu amul bu amul sponsor sax làmb dafa war a dafa war a neex parce que combat am na combat yoo xamante ni combat yu neex yu fi am yoo xamante ni boo leen tëggee ba sponsor amul sax dañ ciy génn kon làmb voilà kon làmb nag promoteurs yi nañ dem génn ji xaalis ñëw tëgg làmb yu baax làmb koloo koloo du làmb ay làmb da ngay xool comme jàmbaar nga xool comme ah, ñoom Aale ñoom kii Aale Ndiaye yi. Alburaax Alburaax am na combat yu neex lañu tëgg. waaw yooyu yëpp soo ko boolee ci benn journée boo ko defee billet dix mille day day boo ko defee billet dix mille cent mille cent cinquante mille làmb day fees. waa da ngay den làmb yoo xam làmb amateur da ngay boole li mën a li ànd. waaw di ñaanal ñooñu tëgg làmb yàlla bu ñu jëm ba seen làmb jub si muy am benn muy am benn jafe-jafe seen làmb yooyu yàlla na egg si jàmm waaw loolu rek la ñuy ñaan quoi waaw di ñaanal suma rakk Macha yàlla na ko yàlla ma ndam di ñaanal ñaabu ndaw yàlla ko yàlla di ñaanal suma doom papa euh, euh, Youssou Ndour kooku sama doom la papa moo ni ko jàppal jàppal maa sek te Youssou ming ma jàpp ba léegi bàyyiwu ma te du ma ko mës a bàyyi waaw di di ko ñaanal lu mu ragal yàlla na ko suñu borom dàqal di ñaanal gàkku xaalis bari la ma yónnee bi mu jëlee avance bi dafa jékki-jékki woo ma ni ma xoolal sa téléphone ma xool ko mu dugalal ma xaalis maa koy ñaanal yàlla na ko suñu borom may ndam te làmb ji la àdduna di xam gàkku ci kàttanu yàlla. voilà incha allahu rabbi. waaw gàkku gàkku bëre bu bëri yéemu ko yéemu ma yéemu nga yor bëre bu bëri yéemu ko nga yor xeex bu bëri yéemu ko parce que ndaanaan bërekat la. fi mu jàngee bëre la waaw di ko ñaan yàlla na ko yàlla kàttanal dooleel ko ba may ko ndam ci bis bu mu jëm waaw di bëggee di bëggee ñëpp daal voilà. léegi nga waxal. léegi ñëwal waaye ma ñëwal ma gërëm. waaw. waaye mbokk yi gis nga li nga moo leen indi loon tey ak ñaan Seck ak Maguette Seck ak seen njëngal comme ni nga cëppandoo émission comme ni nga ko defee waa jaay saa su ne mais tàggool rek comme mbër ñi léegi joo mbër moom léegi dañoo boole gërëm seen àdduna moom damay gërëm ñaar ñi nga xamante ni rek bu may bërëm mbapat ba léegi ñoom lay andal Saada ak Xaadim Mbay mais Saada aw ma fayam daal Saada suma xarit la te xam naa ne sama xarit la dal sama nit la nit koo xamante top kula ku la toppewul dara ku bëgg rek te yàlla tax loolu dafa jafe te kooku lay ànd ak man quoi dafa ma bëgg te yàlla tax suma suma xarit la luma metti metti ku ma wax lu bon mu taxaw réagir ku ma wax lu baax mu kontaan bëgg la ko kon sama nit la maa ngi koy ñaanal lépp loo xamante ni ragal na ko rek yàlla na ko suñu borom daaxal lépp loo xamante ni xama lu baax la yàlla na ñëw ci moom ak doole di ñaanal Xaadim Mbay waa di bëggee koo xamante ni nag suma rakk la suma xarit la suma lépp la muy muy muy kii belal belal suma rakk la suma xarit la belal di bëggee ñëpp daal di bëggee axlu làmb di bëggee ñëpp di bëggee mais di ñaanal suma yaay meer xar si la yàlla na ko yàlla dëddoo jàmm yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana yi gën a kaw fi daw si parce que meer bu sonnoon si man la meer bu ma bëggoon la yaayu zaal waaw maa ngi koy bëggee di bëggee caama suma jigéen waaw di bëggee koo xam di bëggee képp koo xamante ni yaa ngi bëgg làmb avancé maa lay ñaanal nga ñaanal ñu ci lamb lamb avancé parce que lamb su avancé lu bari dina wàññeeku ñi daan jël fi jambour yi bayyi nañ ko ñi nga entraîné ji di gorlu ñi nga daan xamanteni daaw ñu liggéey ñi ngi gorlu di liggéey parce que bo entraîné fo bëgg a liggéey di nga fa liggéey yalla na yalla yalla ñu yalla jappalé dal jappalé mbooloom jor di wax ni gis nga gis nga mbeuri ma leen wax ni soxor baaxul so soxoré suñ borom gis nga gis nga da nga ni soxor départ la lay la lay suñ borom di wan bopam non non mën nga soxor di am lu baax nga yaakaar ni yow soxor nii nga nekkee nii suñ borom suñ borom dasee see ànd ak yow mais suñ borom da lay bàyyi ban la fii laa yem ak yow foofu noonu su fa su fa yem yow doo am la neex parce que benn dangay ngay fajoo li nga yor ñaar wala nga nga am koo ko fajee ñett wala ñu nax la ñeent wala nga dundee lu neexul te yàlla bu loo waree rey sa kàllaama lay njëkk a yàq. wa ma ngi ñaan kep ko xamanteni ya ngi nek ci lamb dal wala kep ko am ya ngi beure nga nek ak sa morom beur li nga yene sa bop yene ko wa lolu rek moy tax nga avancer wa di chat bu walu suma dom ma ngi koy di bëggee ikir walu jep gedda di bëggee kep ko xamanteni euh, fi ñu defee émission bi sekk maa ngi bëggee di jiar ñep di bëggee lin sekk nga xamanteni fan yep damay tok place am nit ku bax la waaw di wax ni daal yàlla na jàmm yàgg daal yàlla na jàmm yàgg yàlla na jàmm waaw jërë ngeen jëf gërëm na ñëpp sant na ñëpp nii lay demee saa ne waaye man nag maa ngi sant di gërëm ki nga xamante ni mooy Baye mbay Baye Mbaye borom Dubaay Baye Mbaye borom États-Unis mbokkum yaay moo get moom moom mi nga xamante ni nii mu ngi saasune li nga xamante ne nii mooy participer li nga xam ne mooy développement réew mi di sant di gërëm ay nit ñu baax a baax a baax a baax a moom Baye Mbaye mu ngi ci ordonnance Baye Mbaye ngi fépp mu ànd ak ki nga xam ne Abdourahmane Gueye borom mouvement islamique ñu xaar ko muy élection mu mu bëgg a pousser le suy élection yi mooy 2024 kon Baye Mbaye maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw dafa am lu ma bëggoon wax bariwul quoi. lii dama bëgg na nga teg ko quoi. ah mooy mbër bu bëree woon keroog tam muy wax ak liiru quoi. kii nu mu tuddee Ahmed dem waaw Ahmed Deme. <clears throat> dem dama bëgg nga xam ne liiru du sa moroom. liiru du moroomam. moom na bàyyi liiru quoi liiru mu mu topp ŋànk ko rek bañ ko bàyyi na bàyyi liiru. te xam ni liiru wax rek ngay def si moom doo def si moom leneen wax rek ngay def si moom doo def si moom leneen liiru bis boo jéemee si moom leneen di nga xam ni yow mooy loolu daal waaw liiru moom dama bëgg yow liiru moom nga xool ko rek nga bàyyi ko noonu waaw liiru suma mag la te lépp looy wàcc moom isam lu wax bu yeboo nga njëkkee ko si man moo ëpp doole waaw waaw noonu la demee xaar non xaari Ndiaye ak liru man duma wax sen diggante parce que ñom ñaar ay ñaari mag lañ ñom ñaar ñom ñoy xol ni ñuy lijeenté sen bop parce que ñu xaari Ndiaye ak liru li ñuy waxante li ñuy defante ñom ñoy lijjanti sen bop ni ñuy lijeenté sen bop ñom ñu xam nañ ko ku ci nekk xam na ko mais dafa am mbeur yo xamanteni sa isam luma la wax dem mbeur nga bëree bu la daanee jëru ngay cible kenn di wax ci mom liru luy neexal lamb rek lay wax liru wax deug yalla ñu fi mu dekk du fi wax lu bon du fi wax ñaaw musu ko fi wax fi lu baax rek la fi wax te liiru li mu yéene boppam la la yéene kon da ngay bàyyi liiru quoi nga topp liiru mel na liiru rek moom moo fi nekk barke Seydina Muhammad Rasulullah bis boo dajeeg liiru sa loxo jug laal jëm ci moom su boobaa ngay xam ne liiru am na rak noonu la demee. moom tamit nee na liiru liiru tamit da nee na liiru dafa defal benn sotti wax ci moom. non liiru lan lay wax si moom Ameth Deme lan lay wax si liiru di wax si moom yow Ameth dem plein liiru yëpp dañ ko daan Ameth dem lan la liiru di wax si moom Alioune Seye dafa daan liiru dafa daan. dafa daan Ameth dem baat ak tontu rak doomu liiru ñëw daanaat liiru daanaat Ameth Dème Ameth Dème na réglé rek moo gën mu nekk nit moo ëpp doole. na nekk nit mu réglé te xam ne lii làmb la liiru luy neexal làmb rek ci lay dox nga jéem a nekk nit te xam ne liiru moom boo ko xoolal da nga koy da koy da nga koy may jàmm rek am jàmm soo ko mayul jàmm doo musa am jàmm noon la demee waaw. waaw jaajëfal leen mbokk yi comme noonu la ko waxee rek la demee saa su dee waaye encore une fois jërë ngeen jëf mbokk internet yaa na sant ki nga mooy joo moo nekkoon ci cadreur bi moom toujours mu ngi disponible toog di nga xaar kon joo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la jox sa en wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyuwaat mbokk ami internet yi bàyyi Zavision xel baax a baax a baax a baax demee saa ne kon joo aco ñu dem